moom Mamadou Keita moom lañ am ci biir kër gi fii ci Sahel Network TV ñu xamee ko di Dope Kid dina ñëw ci loolu mu nekk ndaw loo xam ne juddute manjaay la màggee fi nga xam ne moom mooy euh, juddute di Pakunda màggee fi nga xam ne mooy manjaay kunda nee na foofu la yaroo foofu la sancee mbaax waaye nag bu ñuy seet jaar-jaram mu ngi dem si school bu ñuy wax Bakote primary school wëlbatiku àgg Bakote upper basic waaye nag jeexali jee foofu ñuy wax Deeper Life ca Mandiaye Kounda ndaw la dafa yëngu ci wàllu wëy mu ne nag afro lay def am nañ ko fii ci biir kër gi waaye du ma def dara rek mbokk yi li muy bàyyi anti ada mu am cuxuñ gum ko cuxuñ rek ci wàllu laaj ñuy waxtaan ak moom tuuti anti ada asalaamaaleykum aduna di leen wax ne ñun ñoo dellu si waat Sahel Network mm-hmm. waxtaan tey moom dañ am gan si kër bi ku ñu ooyee Dope Kid Dope man su ma a xuus si waxtaan bi tey dama laa laaj Dope kañ la commencé music asalaamaaleykum Gambia maa ngi nuyu képp ku nekk di seetaan mm-hmm. Uh, my to the dope kid, mm-hmm. Smurville tool is Momo Dukera. mm You know, my start music like four years back, four years back. Mm-hmm. You know, the Afrofusion lane kare def. Mm-hmm. Yeah. kon loolu leer na ah, kon dafa mel ni Keita dafa delluwaat ci afro parce que yooyu lañ leen xamee ay affaire de la balafon <laughs> affaire yi koora affaire yi ah. waaw loolu loolu laa dafa delluwaat cosaan Anta bu fekkee am nga loo ko bëgg a laaj rek nga xuus moom waaw mu nga that's good euh, kon dalal ak jàmm hmm. dalal ak jàmm man dalal ak jàmm nga ba problème parce que man nag olof yeesatu te doon ma bëgg a olof. waaye doon olof na da bokk. waaw léegi kon nag dara nag jàmm ci biir Sahel man nag dama la bëggoon a laaj yow sa liggéey bi nga nekk di def maanaam woy bi nga nekk def. kan moo nekk sa gannaaw kan moo nekk di jàppale. currently uh, shout to Uncle Stylist Stylist Records am na yéen ñëpp ngeen ko. big producer mu ngi jàppale. ati shubari kudun mansa mm -hmm. you know en Maya santa suma mam tame yanna ko yalla yagal fi mm -hmm. me ko fan bu gudak wer yaram mm -hmm. dam ma ci music mm-hmm. yeah currently stylish house he got my back 100% mm-hmm. although nekut suma manager cause currently ñu bari lo len fak but mun na wone he is my acting manager too mm-hmm. yeah fanga nga du sa bopa jamono ji léegi nii ah, gis naa difference bu bëri. Mhm. que starting starting music bi ak léegi nii suma level fu mu toll. Mhm. it's really different. lu leen utale. because I see love everywhere I go I see love. because mhm. time bu ne mun naa ne ñu bëri ràññoon ma. waaye tey jii soo demee Manjai. <clears throat> nga ne kan mooy dóob Kid. comme dinañ la andi ba suma kër hmm. amoon naa benn suma benn koto bu baax mu ngi tudda Mansour currently mu ngi Algeria hmm. mu ngi musa jógee Yuna mu hmm. ñëw mu ñëw mu ngi doon ñëw suñ kër balaa mu dem Algeria so mu ñëw pour utima suma tur la laajee ba mu àgga suñ kër. Mhm. mu dugga suñ biiri kër mu laaj suma réel tur. Mhm. ñu ngi ko laajee kuy kooku. Momodou Keita mhm. ñu laajee Momodou ñu ngi ko laajee ban Momodou Keita. soo mu nekkee ma oo. so mun naa wax ne loolu sant yàlla la. comme tur bi dem na. although jaar-jaar yu bari laa am waaye sant yàlla léegi nii gom naa ne léegi nii suma level change na and fu ma nekkee di séntu suma boppam. high level item mm so to ya this kuro kuro thing ya we have <laughs> Corona virus, you know, because mana plan very EP line di job currently, mm-hmm. and bala mai uh, my work show sama manjay sa manjay party Okay. Semua so beri fufla kore deh cause anytime ada show daf dee paak so maa leen bëggoon a may benn sa ay coronavirus baa ko yaa hmm. ay ñu ngi ñaan yal na coronavirus bi dem am waaw continue suñu process man sax si loolu laa bëggoon a ñëw léegi hmm. ah, waaye laataa may dugg si loolu dama lay laaj yow stylist ndax bëgg nga mu manage la wala moom moo la bëgg a manage leeralal ñuy seetaan parce que ñu bëri koy laajte ndax Dope Kid ah. stylish mooy mani jàmm wala déedéet hmm. waaw loolu comme dina dinaa si wax que stylish comme ku ma fekk si këram sax hmm. man si kër bi laa bokk si studio bi studio bi këri artiste la hmm. pare studio bi soo demee soo duggee rek lay gis mooy i artiste rek stylist dafa bëgg a xale bu am talent. stylist dafa ma téye doomam ma téye ko suma papa. laa ko bi ma start di ko woowee oncle si moom dafa fani si moom sax waaye mm-hmm. mu laajte ma lu tax nga ma day ooyee oncle mm-hmm. ma boti pepalaan ka di hol wala dama chair so relationship bu nekk suñ digante dafa over hmm. tight ando bu ga na mo nekk sama manager waye musu ñoo wax ci lool hejna hej hejna jamono jo fi rek mën nga mom euh ci mbiri affaire manage ak yoy nonu mbok yi ndeysan eh, kiñ dalalon tay ji moy momodou keita set seen ciosan mali la bayeko ca manding ba waye nak li olof di wax ne su dalalaat waaye balaa ñuy dem rek dinañu may benn benn benn playback incha allah bu leen dem de xaar leen playback bi ah loolu la ñuy def mbokk yi ñu ngi nii. suma def suma den ka ke pi iti lyrics so she ya ke no ka pi ga jale ka pam man ke mo ti suma flow suma boy ni ne de money de ki thousand she me ya no aku ke si ma se music la de ko pa music ti African freestyle song la boo xamante ne comme su ma egg on stage ma jaay dama dee nekk kan ñuy yóbbu doo kii doo kii so ma inspire ma ne xaaral ma def freestyle. am na solo trop macha allah waaye yow lan nga ñu mën a wax experience and what was the performance on stage. Yeah, it was like I was nervous. Babasa. Baba <laughs> and first day like on stage combo mm-hmm. nyunya talawan. Man Damaski accused by shout out to my niggas Damaski mm-hmm. accused use mom ngi Italy currently. Eh. Yeah, that's no. Mudono. They were last ones at glass. Specs ah, last one. Yeah. What is what you mean? Crowd be everybody on you know. Mm-hmm. so man specs laa sol suma boy ñu ngi rus waaye dañ ma sof foofu na ah ok that was so nice so donc man dama la bëggoon a laaj yow sa music career ñaata song nga jot génne ak ñaata videos nga release Okay, uh, when it comes to videos, I have three videos currently oh. in YouTube. Mm -hmm. When it comes to single songs, I can say I have seven single songs, but collabo in you gonna bari nak. Because oh. Ah. after the mod duga si group gina si group duga ham, mm-hmm. so lolo mo bari songs si. So you lagi do kit, so you mo na like the uh, nyata top three artists yung ham antene pare nga pudi lagi ang yung collabo ang yung nyan la mo top three nga what? I would say Jizu, Attack, and ST. Wow. Really? Top three. Okay, the meaning of dope, mm -hmm. it has a lot of meanings, but man, luma choose like the meaning of dope is extremely cool. Mm-hmm. Kuma doubt na ngadam sad go go. Really? Extremely cool. The oh, K I D. Wow. The K I eh, kind. Mm-hmm. The I mean innocent. The D mean innocent. Har. Duma ko. Ah. Ni ni nyomo today li. Okay. Wow. Ni ni nyomo ko today. Dama solo ni na ma yangi dope. Dama solo ni na ma yangi dope. yaa ma fi. Eh, ak lu baax yi man mooy dama kaay ah. dama innocent de seen. waxuma ko de waxuma ko so how are you dealing with the girls. <laughs> léegi jànq yi léegi moom koy siiw lañ bañ gis. juga you know cause kom family accept yang family am um, so man dama di appreciate ga cause ak ba bare lundi wa adi si yeb ben len li ak yalla lo dam ko de do ba ba bare ma am kilifa yo amantene dañ ma de wa advice you know mhm. suma hariti tamit duñ man nangu ma def naka sudun non mhm. so moy lol dal am um, always trying to be different you know kay manam um, dal ken rek nga ci jotta tana ah. wa legi legi legi without you lu taw wolo without her ah man without you lah, mom ham na bopam dedet Belum masih je pula. Yes. gini pasti je pula. Ni pun lah iya. ya, macam iya, iya, dalam experience. Wala ni ni dia. lah. Nyun ada sini ku lun werek ah, kom nyun lun experience. Lun yang ada. Jama feel. Nyun lun werek. Yo so lun ki duna na. Jama feel. So meri artist lah dah. Wela dah. Wela pulau pasti je. Ah, okay. So nih pulau pasti lah. Wai mandal. Ngan ayong eh, mom gabuga mom kena. So wai nor gini wai bengahan ada

man luma wax lolu setna without you love song na bahon dan pul love asila man la artist neguna lum goy ya, rek lolu la nek di duna yana say lo wo xamne yeneen ki suma xarit mun na ma explain story ma woy ko te kene na kene na si gis boba so negu ne lu ma experience wala suma love story loolu la nekk di explain mm. ah loolu am na solo léegi xam nga lu ñuy def sa dom yaay sa xarit sa everything mu si bi studio bi léegi dam ko dara rek mu ñu wax ñu kan mooy dokkit do suma boobaa ñu seetaan dina leer

yaa ma fiil kii ku baax la moo tax may ànd ak moom mm-hmm. su ma àndoon ku bon dinaa bon. Mm-hmm. kon nag friends si beneen naa ko dalal si jàmm. Uh, waaw ko waxee rek moom mu nuyoo rek wax ñu moom mooy kan. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi nuyu ñëpp ah, di ziar ñëpp tamit. Mm-hmm. man maay Seydou Fou ñu ngeen ma xamee Delphine Fou maay comme Dope Kid ni mu la waxee rek man waayam laa ñu yàgg trop nag. loolu am na solo trop léegi dañ bëgg nga wax ñu kan mooy Dope Kid ci gàttal rek parce que moom am na lu ñu wax soo léegi yow nga xamante ne lu ënd ci moom fanaan ci yow soo wax ñu moom mooy kan. waaw tey su ma la wax si Dope Kid dama ko wax ne comme booy bu cool la su mu lay musique musique bu nekk loo xam ne comme dafa tax mu bàyyi lu nekk comme dafa war a wéy su wéy dafa war a wéy su wéy dafa war a wéy. Mm-hmm. ku ne daal li nga bëgg nag da leen si war a jàppale. Mm-hmm. pour nga dem ci kanam nag. allah. Mm-hmm. mu ngoog yow nga man Doudou rek nga may jëy ji gaaw parce que gisuma ko ne da ngaa da ngaa am bi nag ak ñooy kàkkaate kàkkaate xam nañ ne xam nañ ne Sénégal nga jóge te corona baa la léegi yow loo mën loo mën a xelal ñi nga xamante ne ñu ngi Sénégal di dund corona bi andee Gambien si tamit. waaw ñibbisi nag balaa corona bi. wala ko passé tey. ñu boole ñu ñu boole def na nga xam nga. xam mm-hmm. ne corona lu xam la lu réel la. Mm-hmm. que Sénégal yi bàyyi déggal bopp waaye déggal bopp bi Gambie tamit bàyyi déggal bopp parce que maa ngi seetaan news every su mhm. a a bàyyi a wàññeeku mhm. amee fii dara dafa mhm. a bëri euh, woy without you léegi without you bi def ko bañ a leeral ñu wax ñu you boobu kan la yow doomi yaayam la wax ñëw. interview bi kan ak ko foog naa laajte ngeen ko ñu. na am na kum sirifa parce que mu la ku nekk am

my right now, Suma Luma Bugarne Hamai, I want to produce my own music. <laughs> so my Jagga stylist, I'm not stylist, no my Jaffa is. So we are like a Jagga stylist. Music like Lava, no Bugar Ligi, my music. Mm-hmm. Uh, maybe Suma engages, Silene, Munamaya has my music. Mm-hmm. So Suma focuses in music, Muna produces my Baba. Yo, that's Suma so air eh, oh, music, good music. I want you to be. kon leer na léegi joxe sa final words nga tàggatoo ak ñi seetaan ñu tëjee covid 19 ok uh, comme i really appreciate this comme invitation bi rafet na trop am ay sa dimu tal ma war naa ko comme naa ñëw tey bu ma wax tamit ñëw naa fekk tamit jotut am na solo so ay libi ñu ñëw tamit you know, she is very friendly, mm. you know what, and mom, you know, interview, when you finish, we get up um, mm-hmm. bukan alen awak ingin subscribe to my YouTube channel Dokit Kera on YouTube mm-hmm. ingin follow me, follow me uh, on Instagram Dokit Kera mm-hmm. Dokit Kera uh, yes official you know mm-hmm. Facebook temen ingin tahu ma and ingin watch out nyanyan temen coronavirus yang muda mm-hmm. because alis dia pinggir lagi but li corona bini mau nyanyi kerja halu but and gentlemen temen kemalanan yuk mu ne bi yaaxal na leen xanaa yow yaa ngi wokkoon dixième projet bi parce que artiste nga def fii Sahel Network TV about 50000 people ñun dañ laa may music video free oh. so léegi yow yaa xam ni koy partager lu ko français di waxee sa doom yee ma xam naa waa Dakar bu ñu dafay jeex am naa kay nañ ma am video ma am videos mm-hmm. so leen bëggee ma ñi ñi Sahel Network ñu ma video mm-hmm. please subscribe and view and, and like. share yeah, sure. Bulwari. Murah